li si yéenekaay yi ak Ami Deme Senghor internet du 5 TV àll ba si yéenekaay yi daanaka yéenekaay benn ponk la xëyee tey te mooy sargal bi ñu doon sargal Pape Bouba Diop niki démb ci aéroport international Blaise Diagne le quotidien ne Pape Bouba mooy tàggkatu yaram bu njëkk boo xam ne rek yëkkati nañu ko ci rang grand officier dans l'ordre national du Lion Walf Quotidien dolli ci ni musée national bu football bi nga xam ne moo war am ca Diamniadio du Pape jubal ba ñu war a def rek ca àdd bu jam ñaajo ne askan wi yëpp booloo woon démb di delloo njukkal Pape Bouba Diop lii quotidien teg ca ni Pape Bouba ba faaw ci sunu xol yi les échos dolli ci ni si njiitalu rek njiitu réew mi décoré bi ñu war a décoré eh, à titre posthume ak midé bi ñu ko war a tuddee askanu lémm rek ñoo sargal démb Pape Bouba Diop Marion Diop nekkoon soxnaam xam ne na si yérekaay bi ne rëccuwul benn yoon li nga xam ne moom la nekkee woon soxna u Pape Bouba Diop moomu a loon mooy la ñu ko Diop di doomam moom it a na daa kontaan ci papa ji nga xam ni moom la amoon Siga Bass Camara di nijaayam xamle na ci yéenekaay bi ni ñu ba tey rek lu ñeel a jébbal bi ñu ko war a jébbal boroomam tey jii bu 11h jotee la ñu koy amal ba tax Le Soleil ne ba faawu gaynde ñu jàll ci laatew bi yéenekaay bi di ñu xibaar ni rek ca Soumbédioune Thiaroye Yaraax nappkat ya fa dañoo mer ba futtoo ba tax rek ñu daal di wàcc si mbedd yi ngir fësal seenu ko mer ba tax ñu daal di taar ay pneu rek ci tali yi ba tax way takk der yi daal di fay ñu teg loxo ñenn ci diggante nappkat ñu àddu ci mbirum centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi daate binduñu si xibaar ni juge bi tëj ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite woon les échos ne coow loolu dossier ba rek ngir rek mu tëj képp koo xam ne moo jiite woon centre yooyu enquête xëy si lu doy waar yéenekaay bi ne benn taalibe bu atam la ñuy métital ba journal bi ne autopsie bi ak seede yi nga xam ni moom moo ci am moo tax rek ñu xam ni métital yi ñu ko métital moo tax rek mu daal di faatu le quotidien di ko ca feelu ndax fësal na ni ca mbuur la ñu fa dóor ba mu faatu mi xëy si yokkute mbas mi yéenekaay bi ne lim bi nga xam ne moom la ñu am démb mooy bi gën a tar nag si ñu am bés bu nekk ndax juróom-ñetti fukki yu bees am nañu ko bésu démb démb bi dong si ñoom nag ñeen fukk ak juróom-ñaar ya ay cas communautaire lañu Walf Quotidien yokkute boobu moo tax ba antuwaan Diome di jën ñu yor wàll ko biir réew mi daal di jox ndigal rek way takk der yi ngir ñu wàccaat ci mbedd mi te taral saytu bi jëm rek ci takku masque yi la ñuy dakee pelis yi yéenekaay yi ma delloo leen seen nopp ëllëg incha allah jërë ngeen jëf